ñu ngi doon liggéey di teg di nocc waaye nag wax tey lay door a jot ndax tey la lépp door a sotti ndax la doon liggéey yëpp tey lay door a sotti ndax tey la ñuy a nangul mu wér ne lii ñu doon liggéey yëpp ci suñu coalition bi yoon nangul nañu ko muy suñu liste yu ñu def te amuñ ci benn jafe-jafe grâce nag ak liggéey bu am solo bi nga xam ne wax dëgg yàlla membre yi nga xam ne mënu ma cee kenn parce que bari nañu ñu ku ci nekk moo ci indi sa liggéey def ko ci ba loolu yëpp sotti donc wax bi mi ngi door a jox tey donc bés ni tey wér na ci yoon ak ci bëtu ñëpp. ne la grande coalition wàllu Sénégal dana bokk ci élection locale commune Gueule Tapée ba pare am candidat bu tudd maître Baba Diop. loolu wér na mën nañu ko wax ndax weer ci ginnaaw mënuñu ko woon wax mais tey mën nañu ko wax waaye loolu nag loolu nag tëbul rek am ndax wax naa ko sànq. waxtaan yu bari am na ci waxtaan yu bari am na ci gannaaw Seydou wax na ko sànq bari woon nañ candidat ak ñu ko mënoon doon Lamine mi bokk na ci waaye ci seen ci seen màggaay ci seen màggaay ñoom ñëpp bi ñu demee ba ci biir ne daal nañu bàyyi maître jiitu ma leen ciy gërëm ndax nag yore mairie moom mën nañ jàpp ne sax fii ñu fi nekk ñëpp ku ne mën na yor lu ëpp mairie lu ëpp mairie fii ñi fi toog ku ne lu ëpp mairie mën nga ko yor waaye bu ñu jiitalee c'est parce que ñoom dañoo nekk gor rek moom mii Ousseynou ku ko bëgg na yow moom moom mi fi nekk adjoint maire man mosuma nekk adjoint maire waaye moom nekk na adjoint bu ko neexoon ne man léegi topp leen yow conseil municipal nga doon man adjoint maire laa donc loolu day wane. esprit grandeur nit yi nga xam ne ñoo toog fi waaye ah ñoo xam ne man it du ma jomoo ah <laughs> waaw ndax ñoom yàgg nañ liggéey ci programme wax naa fi sànq ne ñetti yoon a ngi nii ñuy dem élection donc yàgg nañu xelaat ci luy doxal mairie bi tout comme ñi ma àndal ñii yëpp ñu ne bi ci njëkk ñépp xam nañ ne mairie dafa am lu ko tax a jóg ñu ne waaw li ko tax a jóg ñun de gis nañu ne suñu mairie bi moom ñi fi ne moom dara dara dara defuñu ko fi yaakaar naa ne suñu bokk journaliste yi sax xëy na ba ñuy ñëw xëy na seen oto yi pànn ci paxu tali yeeg wala yi demee noonu ndax ku ne mën na gisal sa bopp ne commune bi boo fi duggee da ngay yaakaar ne mairie amu fi ndax li koy waral benn benn cadre de vie xam nga nit ñi dañuy tëb rek di wax ay projet wala di wax ay yeneen mbir mais mission bi njëkk ci mairie tey boo duggee code des collectivités locales premier article bi ñu jagleel commune article quatre-vingt-un li ñu ci wax mooy commune mission première am mooy assurer ñëpp dëkk. ñi dëkk ci commune bi nga assurer leen ay meilleures conditions de vie meilleures condition de vie yow bala ngay wax école ba bala ngay wax daara ba wala feneen ak feneen yow cadre de vie bi na nga fexe ba nit ñi am jàmm bu ñu génnee mu set mu normal am sécurité loolu c'est la mission première bu commune mais xool leen suñu cadre de vie bi soxlawul sax ñu koy décrire. génn xool yi ñu ngi koy gas bàyyi noonu mais kenn toppatoo ko donc échec bu équipe bi kenn du ko naataale mais li ci gën a garaaw du loolu li ci gën a garaaw mooy dañu téye mairie bi def ko seen moomeelu bopp def ko seen moomeelu bopp ku ku mu neex lañuy jox ku mu neexul duñ la jox. boo ànd ak ñoom faale wuñu la boo àndul ak ñoom ñu faale la waaye loolu moo leen di sànq nag ndax loolu moo tax noo ñu ko jàppee seen moomeelu bopp mooy tax ñu ci def lu leen neex waaye def lu leen neex boobu nag moo leen di sànq ëllëg parce que alalu askan la ñu fii tey ñëpp dégg nañu escandalu marché Gueule Tapée loolu lu ñuy réglé waat ëllëg parce que problème buy judduwaat ëllëg danañ ko konti ak yeneen ak yeneen donc ñii moom yaakaar naa ne ñoom ci seen bopp bu ñu amoon jom sax bu ñu amoon ngor sax dañu naan dañuy jox nit ñi seen àll rek daw demaan dem njëkk voilà donc nag di terminer di félicité encore une fois de plus ñi nekk ci présidium bi ñëpp mais aussi du ma jeexal sama kàddu te delloowuñ ñu ko aussi comme ni ko Lamine seen waxee. le président Abdoulaye Wade foofu laay terminer et d'ailleurs et d'ailleurs je le dis ici et de manière solennelle notre slogan de campagne cette année sera soppi nous allons danañ dekkalaat soppi soppi donc pour rendre hommage le président Abdoulaye Wade waaye pour jógee jëlee fi aussi ñu bon ñi nga xam ne ñi ngi fi di yàq mairie bi waaye aussi dina rendre hommage le président Doudou Wade qui est notre candidat pour la ville démb wax naa ko dinañ ko gunge bu ci yeneen 19 communes d' arrondissement yëpp jàppee comme ñun ñi nga xam ne mooy Gueule Tapée Fass Colobane je reste persuadé que il va gagner la ville de yaa ngi jërëjëf